jaaxle ak njàqare ak yaakaar gu tas la askanu njaareem di dund li ko waral mooy fukki fan a ngi nii ak ndox toq ci seen robinet yooyu taw bu mag bu fa toj loole nag jural na leen ak njàqare ña nekk foofee ndox mi ñu munta ñàkk fu ne lañ e a defar buñ sukkandikoo ca ña nekk di Malick Fall mi jiite mairie bi fa ne saafara jafe-jafe askan wi dafa leen a të Malick Fall di xamle ne woon a waa SDE waaye pokalee bi ko war a defar moo fi amul la ñëpp di ñaawlu nag mooy tuyau boobee boobaak léegi du kenn ku ci taxaw njaareem nag bari ay jafe-jafe ci wàllum koom-koom buñ ci boole boolee ñàkkum ndox dina gën a métti ci askan wi